lekkee mu neex walla nga naan nga màndi ñoo tax ñoo tax yàlla def ñu jaxasoo te kenn mënul wax ne diwla soo ko bëggee gëstu ci moom da koy nëbb muy xool loo xamante ne boo ko tegee sa bët sa ajo fajo àddina ak alaaxira bu bañee bu xoolee nga xool mu mel ne ku xool feneen fekk nëbb rekk ko waral ñun nag dañu nëbb nëbb mbëtt ah. mbëtt bopp bi rek la yaakaar ne mooy geen gi bopp bopp mbëtt su dawee bi dugal ko ci pax danaan gis kenn gisatuma mosu gis mbëtt mu daw bi dugg ci pax di nëbbu li ëpp ci yaramam ci biti lay ne nëbbu bu bari nag dafay wane feeñ bu ëpp di sant waa dëkk bii nga xamante ne ñun ñoo fi nekk fii la ñu juddoo ak ñoom yaroo feek ñoom suñu bàyyi juddu fi suñu maam yi juddu juddu fii ci dëkk bii ñu bokk maam yi ñu jur dañoo ay mag ak rakk wala nit ak doomu bàjjanam moo nekk ci tuggane gi wolof dafa wax ne luy naaw boo amee luy naaw ne nañu looloo neex a sànni nga diir diir bu bu sori li nga koy sànnee mu amilaaf looloo gën a looloo gën a neex ndax daa bëgg mu yegg fa nga mëbët ne fa la jëm waaye loo xamante ne dafa mënul naaw amul ilaaf tooy xepp nga sànni ko sànni bi fii lay dal bis bi Ablaye Wade di campagne ak Abdou Diouf fekk conseil communautaire commune euh, communautaire bi ko fekk communautaire moo am sama papa Babacar Faye nekkoon chef du village bokk na ci conseil yi ñu am fi ñaari daje politique benn bi nekk ci kër gi foofu ci Tugani benn bi nekk fii kër Alaaji Momar Si sama sama sama baay ma bàyyi Babacar ñëw ànd ak toog fii ci Alaaji Momar Sis jamono boobu ñu ne na am kenn ku jël kàddu pour waxal xale yi donte ko ñëpp nekkuñu fi ma jël samay engagement ma ne naa wax loo xamante ni ci Tugani képp kuy doomu Tugani wala nga jege ko di ko rafetlu te bu njëriñ ñëwee di nga ci gis sa bopp mën ne gis naa lu yàgg ne daje bi ñu daje Ablaye Wade mooy gañe te Ablaye Wade bu gañee commune bi dina dem ci commune bi dinañ ko téye te moom si laa gis keroog ci jotaay bi laa ko xam. ba ma jëlee kàddu mën nuñu mbooloo mi ci kàddu xale yi ma ne guléet ma yëkkati sama kàddu di di wax ci politique tey guléet tey fekk ne li ma nettali nii gis naa ko bu yàgg. yàlla nangu ñaan boobu ñu dem comité rural ñu Ablaye ñu dem élection présidentielle Ablaye da gagné conseil comité rural bi dem daje ñu fal Alaaji Momar mii te Alaaji Momar ba ñu koy fal fekk yoon mayu ko droit moom moom mu bokk ci élection comité rural lu am jafe-jafe rek yàlla ubbi loolu mu nekk ab yombul ci moom maanaam la nga xamante ne moo ko téewoon a bokk ñu gis ne loolu ko téewoon bokk mën na koo tax a bokk léegi Alaaji Momar mi ñu di ko doxal di ko doxal bi muy jël commune rurale bi am na ku ko wax léegi du benn fan du ñaari fan du fukki fan wala boog du benn at du ñaari at du fukki at léegi nag taxaw bi ma taxaw fii à part Momar maa ngi koy defal sama jarbaat am na ko wax sama doom sama jarbaat yaayam moy sama mag mu ngi ñuy gis nag yàlla na ko bi na ko bi li ñu xam bu ñu ko waxoon ñëpp daw dañoo xam lu bari lu bari fi la mu fekk dañoo wax ñaari soxnam sànq mm-hmm. ani kenn ki mooy kan ah, na nabu kii man maa ko maye ci mbuur maa dem mbuur maye ko foofu sama mag jur ko ah. xam sa léegi sama njaboot yaa ngi dajale ki papa moom moo ma ne àddina ak alaxira dénk naa la ko yax bu bu bu bul ma ko jox parce que mun na manqué muy julli ma jël ko tegaat ko ci waaw léegi li xew xam ngeen ko man dama tawat tëdd tëdd tëdd mënuma mënuma jóg ndax nit ñi duñu nettali na mu képp kuy wax sama wax waxal ne lii rek la wax bul wax lu waxul waaw hmm. may rek maa ngi ñëw sama yaram moo tàng moo tàng rek <laughs> li may wax li may wax ñime naa ko bu ñu àndoon sori fii rek ma wax na ne est-ce li ma wax dëgg la wala dëgg nga ne ma nit ñee taxoon rek waaye dinga wax dëgg la musuma tooñ tugune ngi nii daj musuma ci sàgg nit te du am mukk su ma amoon milliard tugun gi lay dëgg sama maam guutoon dafa wax ne sanc naa dëkk bi ba muy sanc dëkk bi néeg la tabax yenu ko di dox ci àll bi fu mu dox ba mu yegg ci diggu àll ba mu wàcc néeg ba fanaan fa di di gor dëkk bi di ko creuser kooku moo jur maamu pabax mi la mag yi ñaanoon suñu ko doxalul it suñu njaboot dina ñëw ëllëg doxal ko mbir mi nag li yàlla ñaan wax na ne lu ma bëgg bëgg bëgg maye du leen jox lu ngeen soxlawul su ngeen ci yeggee ngeen ne jot na wala am nañu yaakaar ne lii ñu lii ngeen ñu ñaanaloon am nañu kàttanu doxal ko yàlla na bisimilah yàlla na loolu ma ñaanaloon baayam muy benn yoon kii mooy ñaareel bi incha allahu rabbi la ma ñaanal baayam ñaanal naa la juubul bi ndax bu fekkente ne ku dem wuti loo am nga indi ko fii ñun lu ñuy soxlaati waxtaan wax dëgg la tey dem du tee kenn dem ah bu dee ku dem rek loo indi beneen même bu dee xooxu màngo wala ma wala benn se nga indi ko keneen indi leen keneen indi leen li ñu soxla dafay faj waxuñu pour yàqal kenn waaye yoon wi yaatu na woykat yaa ngi fente woy chaque jours woy jeexul woy du jeex ba ñu tàmbalee woy ba léegi bis bu yàlla sàkk nga dégg woy bu bees te way du jeex kon bis bi ñu daje fii dama ci am engagement yu bari comme ni ko premier militant bi waxe imam nee na mooy premier militant waaye doomu golo na la jàngal yéeg parce que boo poussé bu téyee jafandu boo bàyyee fa mu toogoon lay naan nopp du daanu boo ko toñee mu dem waaye xaal neexula yégal yéegal ndax xaal day bërëmu te du te jafandu boo bu jàppee boo bàyyee mu fekkata ci suuf toj kon ñu ngi leen di sant bu baax di ñaanalit mag ñi nga xamante ne ñoo fi ñaanal it ko fi mag ñi nga xamante ne ñoo sos dëkk bi sos ko wax ne yéen doxal leen bu ngeen ko nar a yàq ki ko nar a yàq du ko nettali loolu la wax kon mag ñi defar nañu lépp waaye xale yi nga xamante ne am nañu ay initiation yu rafet ci dëkk bi ñu ngi ñaan yàlla yàlla kàttanal leen Pa Biram yàlla na yàlla dëgëral la sama papa day wax ne li nga mën ren mu ne asaka yi déwén yàlla na yàlla na nekk see asaka li nga mën déwén loolu la ma doon ñaanal tabaarkalla kon pap nañ ci dugg ci bismillaahi rahmaani rahiim bul bari nag loo tontu man damay tontu léeg-léeg bu ma meree léeg-léeg ma ne ah yow li nga wax amul waaye boo ko toppee sa yoon du yegg ki la naan du noonu noonu nag wala du dem ak yooyu kooku kooku moo la dimbali kooku moo la dimbali kon yoon wi sori na ah jàmbaar nag moo ciy dox waaye nag du jàmbaar kese waaye ku yàlla jàppale moo koy yeggale kon ñu ngi sant mbooloo mi li ma war a wax bari na ndax damaa xaw a démb am na ñu bari toog fi ñoo nekkoon ci Macky Sall démb waaye RTS benn waaye daf maa fekk téye micro bi ma xool muy RTS mu ne ma góor gi damaa bëgg nga sànni ci kàddu man na ko man aw ma kàddu mu ne yow du ma la bàyyi mukk te sànni ma ko kàddu ah ma sant gërëm télé bi Sénégal yëpp ñu ngi may woo ñu ne ma yaa doon wax rajo Sénégal démb te wallaay man nag lu baax ak sama yéene laa wax yaa ngi dégg kon comme lii mënu ma ci mucc ma sànni ci loolu di gërëm ñi fi toog teet toog ñoom ñëpp di leen sant di leen gërëm fi ngeen toog fii ni mu meloon bari til la guddi kenn du fi jaar ak ñax ñoo fi toog tey détail ventilateur di ñaan Macky ñaanoon nangu nangu na